ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara te di leen wax ngeen dal jàmm di am mbégte ci seen teewaay fii ci kër gi ah, di di sàkku loo xamante ne nii ah, am na njëriñ lool muy mag moo xamante ni nii mag mu bokk ci góor yàlla yi la Bok ci mag ñi nga xamanteni ni serigne Touba mo leen defal bopam ah kon ñu bayyi nak legi ma xam fan ngeen di tambalé seen laaj ak lan ngeen bëgg xam bismillah. xam naa tontu ci loolu moom dina xaw a diis waaye nag daan lañ ci tontu ni suñ kenn kattan. maam Alassane Seck mi ngi dëkk ci dëkk bu ñuy wax Taïba Maar foofa fa la fekk baax mbaa boog fa ko baax fekk foofee fa la gàddaaye ngir sàmm diineem ak sàmm am njàngum alxuraanam ñëw fii ci Mbaaka fekk si fi mi ngi dal ak góor gu ñu wax birima diba mi mam wa diba mi mom la fi jëk fek na ndax xam nga borom xam-xam yi mom fuñ fek fekk fu ñu seen morom rek la gëna gëna mëna waxal bi nga xamanteni ni ñew na fi ci mbakalu fek fi gor gogu ñu wax birima diba muy mam wa diba mi di sunu mam nu ñi xam moy mam sunu wayjur mu ànd andi ko ci sëriñ baaka ñu yëleeku ko ah ma daal di koy wax li nga xamante ni nii mooy mooy mooy mooy li ko tax a jóge fa mu ñëw sëñ Mbaaka daal di ñëw daal koy dalal daal koy tatagal dalal ko muy feenu nekkan tey ah, boo demee tabax bi ngay séen nii des aw des des waa fa ne ci sa wàllu muy ca muy muy tabax boobu ngay seen mu weex des woowe fa ne foofee dëkk bi nekkan booba muy euh, nu dëkk ñu dalal ko foofu ci guy yi guy yi ngay seen tuuti ci kanam noonu langook tabax bi nga xam ne yow sa maam moo ko fa bàyyi woon tabax bu xongo boobu muy foofu daane na maanaa daal booba daane na nu lu war a mat samet daal ndax xam nga ab sëriñ moom boromi donga day du bu sañan day beru loolu moo ko fa indi noonu la def ba sëñ Mbaaka dalal ko foofu mu nekk foofu ba yàlla def mu jóge foofu fekk sëriñ Touba xumaag muy dëkk boobu nekk Murtani te tubaab bi di ko wax si ma foofu mooy xumaag foofu la fekk sëriñ Touba at mi dama ko Euh, teewluwul at moom fa demee fekk ko fa waaye daal loolu moom mën na leen ko si wax foofu la ko fekki yóbbul ko fa ay lu mel ni ay kayit ak yi nga xamante ni daal xeeti sëriñ sëriñ bi dana ko war a soxla woo yu mel noonu bi mu ñëwee mu dalal ko sëriñ Tuubaa nekk ci li li nga xamante ni moom la moom la baax wooti ko def nekk ci liggéey bi ba mu ni ko ndongali na nga mu ni ko Alassane mu ko fuy dal ba mu ko mbaaka mu ni ko mbaaxe daal toog delluwaat ci ni mu ni mu baaxoo def noonu rek nekkaat ci ab liggéeyam ba maamat diir mu ne ko ndongali nga ni na nga tudd mu ne ko Alassane mu ni ko fuy dal ba mu ko mbaaka mu ni ko mbaaxe ba mu muy yetti yoon daal mu wax ko noonu. foofee ba mu fa jógee nag la sëñ Tuubaa def ci moom li def ci moom ba mu ñëw nekk mbaaka mag ñu bari yu baree baree bari booba ci moom lañ jébul woon daa fa def mawluut bu ñu Moussa ñëw dañ fay nekk di jàng nga xamante ni booba jàng doole moo am nii nga xamante ni noonu la xaralay wees yi bare amewul barewuloon noonu yàlla def mu nekk fi suñu bàjjen bu ñuy wax awa jawloo fekke ne loolu loolu nee na ma nee na fekke na ko bi mu koy wax man booba tu tànk laa maa ngi toog ci ker sump gu nekkat suñu dëkk bee fen nekk ne ker gu fi suñ kër nga xam ne foofa noonu suñ kër ñi fenn fan sancan foofa moo doon këram suñ deman tey gu yooyee naa la ni gu yii fii mooy këram fii moo doon kër gi fii doon fii moo doon dëkk bi bi dogalee ah bisimilah sëñ daam loo bëgg a wax foofu. Hmm? waaw wax naa la ko ci njëlbeen gi boo déggoo maanaam la ko tax a gàddaay foofu tey ba maar xam nga booba ñi nga xamante ni nii la nii la islam bi amee doole ci biir nit ñi booba day door dugg rek maanaam tuubi tu ay tuubit lañu yu baree baree bari Ah, nek nañ l'islam bi waaye dañ dañu xawana melni mel ni du ko li ko jaxaseeg moom daal loola moo fa nak moko fa tax juk ay mel ni ay teug ak ay xum xum yooyu yooyu moo ko fa tax jogé moko moo jogé fofu ñew dox ba ak ci fi ci mbaakalu gi ni mala ko waxe ci ben gi mi ngi jëkk yam ci wandi ba yi rima diba bo frère fofu ci tol bi sa bay ma siri bay amna mangugo maggu fi nekkan goo xamante ne nii ah du ngeen ko xam yeen waaye nun ñi fekk nañ fi ak ak ñin féeti mag tuuti ne fii tey jii maa nga googee moom moomee moo ko moomoon suñu maam Alsaan Seck moo moomoon màngul ba mu fa jógee ah li tax ñu bàyyi ko waa Ndiba yooyu ndax ñoom la ñoom la jëkk na ci moom moo tax góor gu ñu wax Sàmba ba mu daal di jël màngo googa moo ko moomoon soo gëstoo ci mag ñooñu dañ la wax lu bari histoire boobu ci histoire bu màngo gi fu ñu ci jaar fu bari koo xam koy bañ a wax ci euh, biir kii micro na ma na góor ga daa waxee ak yow yëpp dañ koy bañ a wax muy da dul xaw <laughs> loo xamante ni du ma du mën a jàll daal waaye foofu daal lañ la ci mën a yemal foofu ci googu wet loolu daal mooy li ko sabab dëkku Mbakaw ak ñi ba xam mi ngi fi wala nii waaw ñoom xam nañu ni booba mi ngi fi waaye nag yitteelu leen daal pour ñëw jël si koog yooyu di ko jël si yitteelu leen daal maanaa daal xam nga ab sëriñ moom woonee ginnaaw ñu bëgg mbuux daanaka da dañuy xaw a mel ni ku féex ba daal duñ ci duñ ciy demee noonu ak it rek wërsëgu waa Mbaaka nekkan ci rek tey li nga xamante nii moom la fee mu tey kon bu boo déggante woon nii mayoon nañ ko lam bëggan foofa kon foofee mu fekk baax fa koy defee waaye booba fekk na waa Mbacke am ci moom cër bi moo tax noonu daal la demee ah ba ma lay wax muy maam Awa Diop bàjjen loo muy maam yi màggat loo nii moom lay wax mooy nday Faat Awa Diop maam yi màggat ñoom nii mooy ndeyam bàjjen bàjjen la ci noonu. da def suba gu xëyee ba ba bi mu fi nekkee suba gu xëyee sama kër gi dafiy ñëw nan daa nekkee foofu la ci ba nekkee fee danaa wax bu ma kër gi daal mu fi duggee rek sama xol day sedd ndax sama baay da doon doomi ndayam daal nekk magam di doomi ndayam nga xamante ni man mii wax ak yow wax nañu ni moom moo ma leew ci néeg tudd ma tuddee ma moo ma dulloo kon xam nga kooku ah, ko fa taxam ne ak di toppatoo bokk gi xam nga mag ñi moom dañoo fokkan seen cosaan fonk seen bokk loolu moo ko noonu waaw léegi nag loo bëgg a waxaat foofu ci Mbacaloo waaw mooma daanaka xam nga boobu jamonoy yooyu sax. ni Touba demee demee nii ci yóbbu géeg yooyu bareeguloon noonu ñaare mag ñi ci bari boo ko seetee fañ fañ fekk baax rek boo leen seetee am na yu bari yoo xam ne Sëñ Touba leen defar boo demee fañ fekkan baax foofa lañ leen denc boo demee Touba kan gii loolu am na fa boo demee dëkk bu ñuy wax mbaal kan loolu am na fa boo demee Dëru Njaay gi suñ ginnaaw sëñ Mor Njaay tàggaar loolu am na fa boo demee noonu naka noonu suñu maam Thierno Birahim ñoom ak ñi toppandi ci ñoom ak mag ñooñu bari loolu moo leen loolu moo leen kenn ku ci ne fa nga nekk loolu moo la fa bàyyi nekk noonu <clears throat> waaye boo déggante woon booba ñi nga xamante ni nii eh, nee na wubbi ko yoonu Touba kon tey ñun dañu koy fekki Touba di ko fi siyaare ji waaye nag yàlla def na fii suñu wërsëg mu nekk fii moom. waaw aman euh, am sëtam ji nga xamante nii moo nekk fii ci Touré Mbay de ñëw na nee na aman na fi njaboot yu jigéen waaye njaboot yu góor la bàyyiwul moom am na ku ñuy wax gër mi sekk fële ma ngi nekk fee ci ñaax foofee la bàyyikoo ci moom la bàyyikoo ci ay ay sëtam ay sëtam la bokk ci ay ñii ñi nga xam ne doomam yu jigéen moo leen jur ci la bokk ci gàttal daal bàyyiwu fi daal doom ju góor ju ko ju joo xamante nii bi mu fi bàyyi koo daal war na ko mën a doon war na mën a toog ci xilaafa ji daal ni ni man a ko mën a waxee bàyyiwu ko fi loolu moo waral ah, bi nga xamante ni bàyyi koo na fi taalibe yi daal di fasantikoo yëpp yi ci bari ñenn ñi ci bari dem ah, seetiwaat feneen fu ñu fu ñu fu ñu wékk seen seen seen seen seen wasila fu ñu def seen wasila loolu daal moo indi loolu waaw waaw yàgg nañ ci am taxawaay sax lu jiitu bii liggéey nii ah, yàlla defal na yàlla dafa dogal saa yu nga xamante ni ne nekk mos na noo jàq ci mar ci ci ah, nawet nawet bu nawet bi maral maanaam bu nawet maralaa daal ba gàncax yi ñaaw bañ tiit ci suñu musaa lu fi moom dem sikkar ah, yóbbu fa ndox teewlu buñ fa jógee day daal di taw ba wala ngaan gàncax yëpp dem loolu moo woon loolu moo sababan sax jëkkën nañ ko defar jéem waajal waaye demewuloon noonu booba lu lu néew la lañ ki dëkk yu war nañ ci dëkk yi ni fi wiin wër yëpp booba ak guddi lañu daa yalwaan dañ ko yalwaan nañ ko dem nañ ba ngaay yalwaan nañ ko ba kel dëkk yëpp bu am fi daal nii boo xam ni loo xamante ne war naa yaatuwaay bi daal war naa mat 3 euh, mètres sur 3 mètres ñu ñëw ñu defal ko noonu daal yëkkati woon ko noonu daal bàyyi ko noonu yëkkati mu tolloog daal dënum nit ko noonu ba yàlla dogalee nag loolee dem ba tuxu nga xëy ne màbb na daal maanaam ba daanu ba xëy daal. doy ginnaaw gi nag te lii lañ sabab lii ay sët ab sëtam muy kooku kooku ma lay wax ku jigéen kooku ma lay wax moom sëriñ ma jobloo mi di sëñ baaga moom la fekk mu yabal ko ci góor gi ngoon diba mu ànd moom juróomi junni ya nga xamante ni joxe na ko moo sabab tey tabax bee bu mag boobee ko tiim bi tiim barab li ko jëkk a sos ca la moom moom soxla soosu dëkk fii ci ci ci Touré Mbay ba ñuy defar fii sax ñëw na ko leneen li ci des nag ah dañuy sabablu rek ay jullit ñoo koy ñoo ko def ñoo ci def seen doole maanaam doom li ci gën a ëpp daal ñoo ko ci def leneen la ci waaye def nag yeneen nit ay barkeelu seen la waaye daal li nga xamante nii mooy jëmmal miir ba nee ba weexal ko nee ñoom ñoo ko ñoom ñoom ñoom ñoom ñoo ko def mooy bari ñu móol ko mën nañ ko daal di miiri fa mu àgg fa muy fa muy lu ci des ñu wax ma ko yàlla dogal ñu koy miiree noonu lan dañ fay taxaw di fa maag sa baay sàmba sàmba foofa lan daa yendu noonu taxaw donga yi ñu koy miiree fa àgg ba tey jii weexal nañu ko ba yaakaar naa ni waaye tool tey jii da koy siir loolu mooy mbir mi noonu la noonu la demee boo ci amee leneen loo xamante ni war nga hmm. Hmm. Hmm. moom moom day bokk na ci ñi nga xamante ni nii wali wali yu day lanu ko lanu ko lanu ko jàppee ndax dinaa ci bu ñu demee ci kanam naa la ci jox benn xisa boo xamante nii alaaji Masaar moom moo ñu ko wax ndax ni ko waxee moom daa bokk ci mag ñi nga xam ne Tuubaa da leen a tibbal ndabam duyal ñu mu fees ba nga xamante ni nii ak ku ci bëgg a jëriñu rek boo awee ci yoon ba nga xamante ni nii moom nga war di nga ci jëriñu mën naa leen daal lépp lu bàyyi waaye taxaw fa barabam bee daal soo ko fa fasee te ñaan ñaan ko ca ca jotoo ca na xoolaat sa bopp te xam ni yow ci yow la waaye du ca moom. suñ fa dee ñaan it nam daan def maanaam kon pas-pas yee wut pas-pas yee ñu aman ba ñu fay dem yooya moo deñ bala moo wàññi ko waaye waaye la fa newoon moom ba léegi ma nga fa léegi moom pas-pas ba ma nga bokk na ci mag ñi nga xam ne daal ñi ngaan ko tund daal ci la bokk mag moom mag mu amal lislaam la magu murit la woon taalib bi sëñ Touba la woon boo xam ne sëñ fekk na sëñ Touba foofu mu lay wax xumaal muy sewa dolma fekk na ko fa ba sëñ tuba defal ko fa lam ko defal fafee la ko defal loolee mu defal ba mu yéen bari di top ci mom bisu ma da wote gamu comme ni ñi koy wote ni mawlud bu ama dañ fa daat dajé ma ngi bari tundu yëpp dañ fay dajé di jang di sikar di jàng mayebu ah, sama alsan lo mi danan na wax bu fa mësa dem na wax na di leen jàng sindi xasi degu sëñ sekk bëggan muy sa de ak moom daa nañu ko wax loolu loolu daal laa ci mën a am ci la ma la ci mën a wax boo ci amee leneen looy waxaat te buñ te naam ci xam-xam it den ko wax dal nañ ci wax fa ci suñu xam-xam tool hmm? hmm? waaw xam nga sabal woon nañ ko ba taxawal ko noonu waaye ginnaaw gi la alaaji masaar bi mu ñëwee sëñ xaadim masam mi mu tuddee sëñ tubaa mbaa mu tuddee ko ku ñu tuddee sëñ tubaa dégg nga moom la ay ndongo yu ndaw ndongo yoo xamante ni sëñ muxtaar loo sëñ muxtaar naar loo mali ci kokki mi nga xam ne moo jiite euh, statut islamique fan kokki mooy mooy mooy mooy directeur kooku foofu la ndongo yooyu jóge biñ fa ñu wax ko loolu xamal ko toppatoo gum leen daa toppatoo daal leen sëñ xaari moom ñoom masaar ñoom toppatoo bi nga xamante ni nii ñëw dem na fa maanaa di yeru daal mu dugal ko pour mu dugal ko xal la ko wax ni ko yow de sa baay mu ne ah, ma ko ab sàcc sàccan na ko sàcc ba nag ni ma nga safara ndax loolaa ko gaw dari di koy xamal ni ko am na ci seen sow wala yu mag ma nga dëkk bi seen dëkk boobu wala yu mag a fa tëdd boo xamante ni lu fa waay lu fa waay lu fa waay fas boo ko boo ko fa ñaanee di ko am moo tax ñu jàpp ne moom moom it moomal moom la ndax moo nu féete foofu moo fa nekk ci loolu te daanañ ko fa ñaan yàlla di ko dogal loolu moo tax. bi nga xamante ni nii nee na sëñ Xaadim ñëw ko baayam bi ko nettalee baayam baayam daal di ñëw ni ko nee ko jéggal naa ko loolu lu ma mos a na ko te yëg ma ci loolu baal naa ko ba noppi wuñu naa ko wuñu ko naa ko def ko addiyee Sëriñ Tuubaa dem ca delluwaatee mun ko ah, maa ngi waaj a de mel na ni mel na ni moom bàyyi nañ ko fem teel fentool tembe nii nekkatul ci ay ay mbugal daal mu ngi ci xéwal loolu mooy xese boobu ma la doon ma la ci doon wax xam nga loolu rek doy na ci ak kii wax na ko loolu tegtal ko yu bari daal yoo xamante ni daal tegtal nañu moom mu ngi sëñ sëñ Alsaan moo tax daanaka taxawaay biñ ci gën a yokk sax du ko gën a force gën ko gën ko ci la ci loolu loolu ci la bokk ci li ko gën a gaawal ci la bokk moom it wax deug yalla ku ci ko la nima la ko waxe rek alxaj masar ku ci ko la ku ci taxaw la ci am pastif la ba liggey ni fi liggéey da daanan jox ko ñu di soñ din xamal ni ni mom liggey bi mom dal nañ ko lu ci way def rek mel na nga ko defal man ko man mi kay lu ci way def dama amul doole waye lu ci way def man nga ko defal ndax sama mam, ndax boko sété ci xéetu mam man mbokk la ci mom ci googu gogum man ci sama maam soqi ko muy sa maam Issa Seck te la soqi ko muy maa njaatee mii nekk maamam maa njaate Issa Saqa mii nekk maamam suñu yaay moom ak sëñ Alsaan Seck ay doomi bàyyi lañu te mag ñi ne xam sa bopp ci jaamu yàlla la bokk soo xamul sa bopp nag di nga dugg ci bari soo xamee li nga xamante ni moom la say maam daa bañ say wayjur daan ko bañ dégg nga ma ko di nga bu baax di leen dénk loolu daal fu ngeen dem daal toog fa na ngeen xam ni doomi mbaaka moo fa moo fa te doomi mbaaka musta teew fenn kenn di ko xebet ci dara walla kenn di ko yeb ci lenn wasalaamualeykum wa rahmatulah wa barakaatu wa ma tawfiq illa billah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen nuyu di leen ziar di jiital ci nuyoo beeg ziar bi Serigne Mouhamadoul Mountakha Mbacké xalifa général des Mourides di ko ñaanal yàlla saa borom mu yàgg fi lool tam ànd ko wér noonu tamit doon ko ñaanal Serigne Modou Mbenda Fall xalifa général des Baye Fall di ko ñaanal mboolem julit mu mel ni kon li leen leen indiloon ci histoire maam Alsaan Seck ak sunu baay Mourlo imam ak sunu baay Sambulo bi nga xam ne moo jiite woon liggéey bii di liggéey maam Alsaan Seck leen ci jaajëfal bu baax a baax di jaajafal mbokk yi nga xam ne ñu ñuy siiw fii seen télévision Tayssir TV ngir ngeen mën di jot nag suñu bépp vidéo nag yaa ngi soog a seetaan suñuy vidéo xamal ni kat ci chaîne bi vidéo am solo rek la ñuy def kon abonné wul gaaw activé cloche bi comme ça vidéo bu ñu dugal rek da am si sa YouTube directement wasalaam